jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha Amar moom moom Touba Anvers la nekk ni mu ko ni mu ko junjee ñëw ña fa ak sëñ Modou Abdoulaye Mbacké ñuy nekk Europe ñu ci bëri xam nañ ko mu nekk jàmbaar sëñ Touba joo xam ne ma ngi fay liggéey liggéey bu rëy ak euh, jëwriñ sëñ Abbas Dieye ak euh, Baye Fall sëñ Ousmane moom itam ay liggéeyu yu rëy rëy def foofa kon xam naa euh, day mel li ëppoon ci ñi nga xam ne ñoo fi teewaloon Euh, pays yi fi teew daa mel ne ñëpp jël nañ kàddu kon ni ma ko junjee woon ci njëlbeen damay jox sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mu wax ni nga xamante ne noonu la ñuy coordonné liggéeyu bitim réew mi waaye ba bu noppee ñu bu daaneelee ñu jox sëñ Abdou Lahad euh, Mokhtar mi nga xam ne moom mooy wax ci turu sëñ Afia su ko defee ñu door a yëkkati jotaay bi euh, balaa boobu nag sëñ Abdou Lahad muy ñëw dama leen a bëggoon a présenté ñi nga xamante ne ñoo fi teew di ndawi daayira bi ak ni nga xamante ne noonu lañ fi teewee ndax day mel na présenté naa ñi nga xamante ne ñoo fi teew jóge biti réew kenn ku nekk jaar naa ci seen tur bu ko defee ñoom ñu teewal fa ñi nga xamante ne ñoom lañ bàyyi foofa waaye bi ngeen dikkee itam suñ aafiya invité leen fii ngir ngeen teew fi mu saafonte yéen soññante ak ci liggéey bi te dégg nañ kàddu yu yi fi jib yëpp mu mel ne jotaay bi lu mënta ñàkk la yaa nañu ko yàlla yàgg a fekkeloo bi ngeen fi teewee suñu affaire woonam mboolem ñi nga xamante ne ñoom la dénk liggéey bi seq koog ñoom moom mooy président daayira bii di daayira Muqaddamatul Xidma nga xam ne te ne 1994 la sosu woon ca atum euh, weeru mars ñu tàmm di ci liggéey euh, ci ndigalal Serigne Saliou ca loxol boppam la la bindee woon leetar boo xamante ne ca leen joxe ndigalal ñuy saytu jumaa ji ak li ko wër gannaaw bi nag ndigalal armeel yeeg ndigalal li li wër ci meeg ba ci biir kër boppam gi lépp joxe waat na ci ay ndigal ngir rafetlu gum rafetlu taxawaay bi ñu taxaw ci jumaa ji jumaa ji liggéeyub Sëñ Tuubaa boo xamante ne moo ko fi bàyyi te amoon yéene ji ñun ñëpp xam nañ ko waaye yëmut ca loola Sëñ Fallou Diop jàng na fi aw bayit léegi buy wax ne Sëñ tubaa ñaan na yàlla faj aajo yi képp koo xamante ne da koy liggéeyal waaye ci boo demee ca Masaalikul Jinaan dafa wax ay bayit yoo xamante ne da caa tudd baatu xidma ndax bu ëllëgee ne bu ëllëgee yowmal xiyaam yàlla day woone ana ñi doon liggéeyal jullit ñi ana waa xidma ana ngeen dem leen àjjante ko leen xisaab loolu rek jaroon na tàbbi ci liggéey bi di ci jëf suba ngoon ñi nga xamante ne ñoo ànd ak liggéey bi sëñ Afia ni sëñ sëñ Modou Fall Kébé ñëw na ci wàllu organisation day mel ne loolu lu yitteel la ndax ñi ñëwaat jëlaat kàddu ci ginnaawam ñëpp wax nañ ko ma bëggoon leen a présenter ñi nga xamante ne ñoo fi teew teeru leen ànd ak yéen jataay bi ngir li nga xamante ne moo fi taataane ci ay xalaat ak ay kàddu dara du ci naax saay lépp ñu war a jël ay notes ñu ngi lañ ca war taxawee ci gannaaw jotaay bii danañ ko ca taxawee incha allah ndax jotaay bi bu xat la waxtaane ci lépp du ci xaj waaye bu ngeen noppee xalaat yu ngeen am na ngeen ko jaarale ci canaux yi nga xamante am nañ ko muy groupe whatsapp yeeg mbooleem foo xam ne mën nañ faa jaarale ab xalaat bu egsee danañ ko saytu jéem koo taxawal sëñ Abdoulahad Bousso Moutalib waaw sëñ Abdoulahad Bousso moo nekk nii ci sama ndeyjoor moom moo moo moo nekk noonu moom mooy secrétaire général bu daayira Muxaddamatul Xidma ndax ni ñi nga xamante ne noonu lañ defee organisation daayira bi loolu mu leer ci bopp ñu bëri day am solo ndax suñ moo Fall Kébé mi ngi koy wax léegi lu bëri leerutoon ci ñu bëri moom mooy secrétaire gis ginnaaw suñu affaire mi nga xam ne mooy président bi moom mooy secrétaire général bi dañoo am lu ñuy wax secrétariat général nga xamante ne du kenn nit rek moo koy saytu waaye moom mii sëñ bu Lahad mu Moutalib moo ko jiite àndante ko sëñ Abdou Lahad Mokhtar ak sëñ Abdoulahi Diop mee ngeen gis ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy secrétariat général ñoom ñoo fa nekk ñooy secrétaire général yi nga xamante ñooy liggéey ñooy euh, coordonné mboolem liggéey bi am na ay commission yoo xamante ne ñoom ñoo ànd ak ñoo boot ci secretariat bi am na commission boo xam ne moom la wax secrétariat administrative nga xam li indi lépp muy nekk ay addiya ay leetar di ci war a am ñu koy war a saytu di ko war a topp ci wàllu administration loolu am na ñu koy saytu commission boo xam ne moo koy saytu ñoom Sëñ Abdou Lahad Bousso euh, Afia di doomi Sëñ Afia moom moo ko jiite nekk ca bureau ba fa nga xam ne fa la nekk ak mboolem ñi nga xam ne ñoo loo xam ne wàllu administration la ci wàllu ay carte membre ci wàllu tontu moo fi jaar lépp lu waay dem boo demee foofu koo xam ci wàllu administration simple laxat dana la ci dimbale ak mboolem ñi nga xamante ñoom lay jàppale ci liggéey bi noonu itam la amee benn commission boo xamante ne moom la ñuy wax commission relation extérieure nga xamante ne ñi nga xamante ne ñooy jàppalante ak léegi ak ak bi te nekk biti réew moom mooy jàppalante ak ñoom waaye ñi ci biir dëkk bi yi ne yeneen daayira yi Sëñ Tuubaa yi nga xam dañuy liggéeyal Sëñ Tuubaa fu ñu mën nekk dañuy jokkaloo ak daayira ndax jumaa ji lépp ñëpp la ñooñu itam wutal nañ leen commission boo xam ne képp ku bëgg ñëw bëgg a jëflante ak bi ci ñoom ngay jaar sëñ Abdou Lahad Bousso maam astami moom moo ko jiite xam naa ku ngeen miin la surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu Amérique ak diggante Europe dafay faral di ñëw moom moo jiite commission boobu ànd ko mboolem mbokk yi nga xamante ne ñoom la ko séqal mu ñu muy wàllu social wàllu commission sociale nga xam ne moo jiite moo ëmb ñaari sous commission yooyu muy relation extérieure ak relation intérieure intérieur ñu ciy jublu biir murit gi ak mboolem daayira yi nga xamante ne wala daayira yi nga xamante ne ñoo ne ci biir murit gi ak li nga xam ne moo génn biti réew naka noonu am na benn daayira boo xam ne moom la ñu waa moom la ñu woowee organisation benn commission bu ñu tuddee organisation boobu lépp lu daayira bi di liggéey moom moo koy coiffé di ko cordonne ba mu jaar ni mu war a jaar ndax daayira bi liggéeyam lu daanaka lu quotidien la maanaam bis bu set dañuy xëy ci jumaa ji di ko saytu ajjuma nag moo ci gën a moo ci gën a fees ndax ñu jullik ajjuma gi loolu am na ñu koy saytu bunt bu nekk ñu am ñu fay monté leen lu nekk ñu nos ko am ku koy def xam ku koy def ak nañ koy defee ñu leen cay formé waxtu bu nekk di yeesal ni nga xam noonu lañ ko war a defee loolu sëñ Fallou Mbackeem Cheikh moo ko jiite mu ngi fi nii toog day day day ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom da ko àndal sëñ Abdou Lahad Jatara ma nga nele ak sëñ Cheikhouna Mbacke moom sëñ Ousmane moom ñoom ci ñu koy jàppale ci liggéey boobu lañ bokk am na itam beneen commission boo xamante ne moom la ñuy wax wàllu audiovisuel xam nga dañoo toll ci àdduna bi di wàllu communication jumaa ji war a am télé boppam mooy télé bii ngeen gis muy MKTV nga xam ne ñëpp war nañ ko bàyyi xel ñu koy jaarale ci réseau yi ci bi waaye itam ci yeneen yi nga xamante ne dañ koy jaarale wàllu TNT bi ak yooyu yëpp ñu ngi jéem a góorgóorlu ba nga xamante ne lay am Madinatu Munawwara ak Makkatal Mukarrama foo ay mën a nekk di fa xam la fa xew jumaay Sëriñ Tuubaa yi noonu la war a mel ndax misaal la ci loola loolu itam daayira mi ngi ciy taxaw wàllu audiovisuel ak digitalisation ñi ngi ciy taxaw loolu sëñ Abdou Khadir Boussom yi ak sëñ Mokhtar Kan ñoom ñoo nekk ci loola di ca di ca liggéey sëñ Mokhtar Kan moo nekk ne ñu bëri bu ñu ñëwee jumaa ji dañ ko fay fekk sëñ Abdou Khadir itam dañu koy fekk foofu nga xamante ne mooy ca euh, wàllu audiovisuel fañ fa nga xamante ne fa lañ nekk di ko di ko di ko di ko saytu euh, wàllu euh, li ñuy wax culture ndax daayira bi yëmut rek ci di setal jumaa ji waaye jàkka dafa am nu ko l'islam santaane ñu koy liggéey noonu te sëñ Saliou daa waxoon ne da daa waxoon sëñ Yaafe ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom la fa àndoon dem ne leen lépp loo xamante ne diine da ko bëgg ci jàkka fexe leen ba ku ñëw ci jàkka sëñ Tuubaa ji fekk ko fa loolu xam-xam moo koy taxawal am na commission boo xam ne moom la ñu woowee commission culturelle loolu sëñ Abdou Lahad Bousso Cerno mi moom moo ko jiite nga xam ne miin ngeen ko loolu moom itam muy faral di ñëw foofa di fa taxawal daayira bi moom moo ko jiite ànd jeeg sëñ Hassan Mbeng mais ak mbooleem ñi nga xamante ne ñoo leen di jàppale ci wàllu ci wàllu ci wàllu liggéey boobu ñu ci ñu ciy liggéey liggéey bu am solo mooy ci koor gi dañuy joxe ay bernde di berndeel yaram yi waaye ruu yi itam ñu leen di berndeel di tànn ay thème di ci waxtaan ci diine ñëpp xam ne fii ki doon yeesal sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo fi tëdd muy sëñ Tuubaa loolu itam lu am solo la sëñ sëñ sëñ daraa mi jógee Togo mi ngi junj ne sëñ Afe yabal na fa ab délégation bu fa ñëw délégation boobu sur les traces des du cheikh ci lañ doon dox mooy toppaat tànki Sëriñ Tuubaa yi mu doon demee Gabon ngir xam lépp loo xamante ne war nañ ko jee gëstu war koo xam murit yëpp war koo xam daayira bi ci commission boobu dañ leen faa yebaloon ngir ñu dem la fa nekk ci ay jeexital ñu mën koo saytu xam ko mën ko archiver waaye lenn ñu mën koo defar ba mu nekk documentaire bu am solo ñu jébbal ko murit yi ñëpp xam Sëriñ Tuubaa nam nekkee woon foofa ak fam jaar yëpp loolu itam ab liggéey la bu am solo boo xamante ne daay laaj ay moyens yu bëree bëri yoo xamante ne daayira bi koy liggéey kon sur le plan organisationnel daayira bi am na ci ab taxawaay boo xamante ne noonu la nii mooy ni nga xamante ne noonu la noonu la tëddee loolu itam day am solo ñu xamal leen ko bu ko defee képp koo xam ne am nga ay suggestion am nga ay xalaat yoo xam ne bëgg nga koo kii itam bismillah daayira bi moom ubbeeku na ci lépp loo xamante ne xalaat la buy gën a joyante liggéey ak di ko rafetal ñu ñu fexe ba am ko kon wàllu wàllu wàllu wàllu finance li tax tudduma ko mooy dafa lëkkaloo ak wàllu administration ndax ni nga xamante ne noonu la ñu jotee lii dugg ki nga xamante ne moo koy mooy mooy mooy réceptionné mooy jot xaalis bi moom mooy bind yi nga xamante ne mooy lettre yi génn kon lettre yi génn day day justifier li nga xamante ne moom moo dugg waaye am na itam ay sorties ndax am na ay rapport yu ñuy def yoo xamante ne lu jàll màggal ak koor yi nga xam ne ñoo gën a fës ci liggéey bi waaye gàmm itam gàmmu liggéey la boo xamante ne dañ koy taxawal daanañ ko taxawal fii ci kër Serigne Afia waaye Serigne Sidi bi mu ñëwee dañoo sant ñu koy defee ca jumaa ja ngir suñu liggéey ca jumaa ja ndax bu ñu mësaa nekk fii itam day am ñu fa nekk ndax jumaa ja faaw day am ñu fa sax di ko saytu ñu far yóbbu liggéey ba foofa di ko fa liggéey mu gën ñoo jege ñu koy mën a saytuwaale loolu tamit liggéey bu réeréy la boo xamante ni ñu ngi koy def ndax Sëñ Tuubaa dafa am ab cër ci Yonent bi sallallahu alayhi kon guddi gi Yonent bi sallallahu ñu koy dundalee fii ci Tuubaa warta yem ak fenn loolu itam ab liggéey la boo xam ñu ngi ñu ngi koy ngi koy amal liggéey bi daal nii la nii la nii la tëddee ci gàttal xam naa lu lu gàtt lay nekk waaye lu gën a yaatu la loo xamante ne lu ñu noos la boo demee ci wàllu armée yi niñ koy gestionné tamit loolu itam dañ cey jël ay méthodes yoo xam ne képp koo xamante ne bëgg ngaa xam sa mbokk boo demee ci bureau ba teg nañ fa ay nit ñoo xamante ne wut ab logiciel boo xamante ne ñëpp dañ leen cee enregistré ñu dugg ca loolu ci wàllu digitalisation la bokk waaye ci xam jamono dëppale ko ak liggéey bi ak jamono nga xam ne du lu ñu bind ci ay kayit waaye boo demee daa nekk ci benn base de données boo xamante ne koo tàppi turam mën a xam ci ban secteur la nekk mën a xam kañ la faatu woon boo eggee foofu koy rek doo loolu itam noonu lañ koy saytoo fii nga xamante ne eh, ci ci barab yu njëkk yi lépp di wàccoo ak ni nga xamante ne ku fi jugee àq ji ñi nga bàyyi gannaaw war a saytoo war a wàccoog yow ñu fexe ba ngay wàccoog loolu loolu lu am solo la loo xamante ne Sëñ Saliou ba mu ñu koy sant daa amoon yaakaar waaye yaakaar doomi Sëñ Tuubaa moom du tas mukk moo tax ndimbal loolu la ci daayira bi am di leen ko seedeel ngeen xamee ko noonu yóbbaale ko fa ngeen jëm day am solo lool xam naa lu yaatu la sëñ Assane mi ngi may junj yu baree bëri waaye xam naa waxtu wi moo moo xat lool ca noot nañ gee damay jox sëñ Blaxat Cerno bu ko defee mu wax ci xëy na bu sëñ Assane koy yónni waa bismillah waaw xam naa li ma ci dolli rek mooy sëñ Amdi Mbàkke mi doon wax euh, bokk lenn ci commission culturelle bi nga xam ne mi ngi nekk France bokk ci ñi nga xam ne tam ci damay wax ne ci daara yi ñi ñi ñi juddoo ci daaray jumaa ji la jàng fi xam-xam ba jàng fi fi ñu war a jaar cim jàng ba diplome am seeni lijaas dem France bokk ca étudiants ya fa nekk ci université ya fa nekk di fa jàng bokk ci ñiy taxawu di saytu liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma euh, moo doon yëkkati ay kàddoom nii ba tey jii bi ñu demee ba sëñ Modou Fall Kébé mi doon wax léegi xalaat yi ñu am ci France ngir taxawal association wala fondation ngir ngir ngir ci organiser ma organiser boobu ñuy war a organiser France ba liggéey bi gën a nosu euh, dëppoo nañ ci sax moom mii mu doon jëwriñ ji nga xam moo koy jiite loolu tam day baax ñu ñu ñu présenté leen ko ba ku ko gis ci bitim réew rek xam ne mooy si am di Moustapha Mbacké bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen balu aq di balu aq ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom gudd fan ak wér moom mi nga xam ne mooy jëwrini sëriñ bi bi nga xam ne mooy borom liggéey bi di sëriñ Touba di nuyu njaboot gi yëpp ak jullit yëpp ndax euh, slogan daayira Muxaddamatul Xidma mooy ànd liggéeyal sëriñ Touba ci jumaa ji kon ku fi nekkal sëriñ Touba yaay kilifa ak daayira Muxaddamatul Xidma kon ñu ngi koy nuyu te di ko siyaar rawatina nag mu doon koo xam ne dafa yàgg féete liggéey bi fu kawe yàgg doon sunu kilifa ca ba mu doonagul sëriñ bi ba mu ba mu toogewut jataayu sëriñ bi kon tey jii la gën a raw ci yaakaar joo xam ne saa suñu toogee ak moom danaa ni yéen da ngeen dama am ci yéen yaakaar ngeen dëggal samay yaakaar maanaam di ñu wax wax yoo xam ne sax ëpp nañu daanaka. ci di ñu kañ di ñu tagg kon saa ñu toogee jataay yu mel nii dana jaadu ñu delloo ko njukkal ñaanal ko suñu borom gën ko fee yàggalte te wéral ko euh, sëriñ am di jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi fi jël kàddu ñëpp di nuyu tamit kilifay daayira bi jiital ci sëriñ Afia ak secrétariat général ak mboolem commission yi nga xam ne sëriñ bi lim na ko léegi di sëriñ am di te leeral leen tamit ni organigramme daayira Muxaddamatul Xidma demee loolu dafay am solo tamit yéen ñi nga xam ne ay jëwriñu daayira ngeen xam ngeen ak nosu ñu xam ne tamit daayira Muxaddamatul Xidma ñu nos la lu lu luñ organise la daanaka sax moom nosoo tax ñu mu sosu euh, loolu it dafa am solo ñu ñu xam ko su ko defee kàddu gi noonu mu waxee nos bi noonu la demee tamit commission bi mu leeral léegi muy commission sociale et relations nga xam ne lépp lu aju ci wàllu dimbalante ci biir daayira bi ak euh, lu aju ci wàllu taxawu nit ñi ak jëflante yi nga xam ne day am ci mbooloo yi ci biti muy mbooloo yi ak euh, nit ñi nga xam ne lu baax lañ bëgg te am am lanteeg daayira bi commission boobu moo ko yor ba noppi ñu yoraale relation extérieure muy lépp bépp cellule bu nekk bitim réew euh, sëñ Abdou Lahad Mamas sa jiite ko wax na ko léegi présenté na ma léegi tamit ma jiite commission culturelle mais dama bokk ci biir commission sociale boobu noonu moo tax liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu commission sociale ci bitti muy sous commission relation extérieure euh, ma jiite ko ci biir commission bu ànd ko ak Serigne Assane Diop. moo tax liggéey bi bi nga xam ne mooy coordination bi aju ci wàllu bitim réew ñu ci bokk di liggéey man ak Serigne Assane ak Serigne Abdou Lahad mi ak Serigne Amdi ak yéen ñi nga xam ne yéen ay cellules yi Moukhaddamatoul ma te nekk ci bitti loolu lépp buñ koy buñ koy def nag ñu ngi koy def ci suufu bureau daayira Muxaddamatul Xidma ak ci seeni ndigal fépp foo xam ne dem nañ fa ci réew mu mën a doon moo xam Amérique wala Europe wala Afrique yëpp euh, ci tegtalu bureau Muxaddamatul Xidma lay doon ak ci kilifa yi su ko defee ñi ngi lim euh, ñi ngi nuyu bokk yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp te te jël fi kàddu muy waa Touba Argentine Sëñ Daam Siise ak Sëñ Baara Njaay waa Touba Italie sëñ Ibrahima Sëy teewal leen fi teewal sëñ Daaru ak sëñ Ibrahima Jaay Xasida ak euh, sëñ Saliou Fall ñoom ak ñëpp waa France ñu ngi nuyu sëñ Modou Fall Kebe ak sëñ Cheikh Diouf di nuyu tamit sëñ Cheikh Diop sëñ Amdi Moustapha Mbacké waaye di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa gi toog di sëriñ Bousso bi Bousso di imaam yi Touba Aulnay te liggéey bi bi muy taxaw fa it mu soññe ci bu baax a baax te te te dëgëral ko ñu ngi nuyu tamit waa Togo sëriñ Mamour Darame euh, di daayira Miftahul Xuyuur ak jëwrin ya fa nekk ñoom si Moustapha ak ñoom ñëpp ñu mu ko waxee léegi euh, demoon nañ fa ñoom ñu ñuy def liggéey bu am solo foofa taxawal fa kër sëñ ak jumaa ju am solo ak daara euh, ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax taxawal fa silil it mu xadimatul xidma boo xam ne ñu ngi liggéey di ko indi fi di ko nuyu di nuyu tamit waa Côte d'Ivoire sëriñ Touba Lo sëñ Sadeex Kan sëñ Baara Fall ak sëñ Mbay Jóob sëñ Daam Jaw ak sëñ Aliou Thiam ñoom ñëpp gis naa leen fi ñuy jógee Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire tamit euh, daayira bi yable woon na fa bu yàggut Muxaddamatul Xidma ngir ñu doon def liggéey boobu waaye fëggan fëgg gileen yi ndax liggéey bi sa Sadeex mais moo ko moo ko yoroon rek ak sëñ euh, Tuubaaloo waaye bi ñu demee waxtaan ak jëwrin yi jëwrin yëpp soññ nañ samp nañ ay silil ci ci daayira yi Côte d'Ivoire yëpp ba loolu feeñ na ci bi ñuy bi ñuy jébale si addee ji ren loolu ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tamit waa Touba Mali ñu yàgg ci liggéey bi lañ euh, te te noosu ñoom it wax di yàlla muy sëñ Abdou Khadir Mbaw ak sëñ Maam Balla Gueye di nuyu tamit sëñ Maam Balla Mbàkke ma nekk foofu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di leen ndokkeel di nuyu tamit waa es Écosse muy Scotland euh, sëñ Talla Fam mi ngi doon woote léegi bokk ci jëwriñ yi nga xam ne naka jekk Tenerife la nekkoon ci Espagne Euh, tuxu foofa yóbbu fa daayira liggéeyu daayira bi moom it ñu ngi koy nuyu di nuyu sëñ Pape cam mi leen fi teewal ak euh, soxna sim àndal waaye di nuyu tamit waa Espagne euh, sëñ Baye Dame Lo mu Cheikh Moustapha Karim sëñ Assane Diop sëñ Mbacke Ndiaye mi nga xam ne mooy président fédération bi ak sëriñ Modou Guèye suñ Mbacke Ndiaye wax na ko léegi ne Espagne moom ñooy borom jumaa ji ñi ci des dañ leen ci jàppale xam dafa xër rek waaye ñu ci desit yaakaar naa duñ ko bàyyee kenn waaw li tax muy wax loolu nag xëy na ñoom wax dëgg yàlla ak ak daayiram xadimatul xidma ak jumaa ji ah dafa jiitu dafa yàgg lool nag wax dëgg yàlla dafa yàgg te man sànna sunnatan hasanan fa lahu ajru wa ajru man amila bihi ku def lu baax ku la ca roy da nga da nga da nga bénéfice ca keneen ka roy te du yàq ci sa jëf dara kon ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tamit sëriñ Xaadim Caam bu Las Palmas moom it mi ngi fi gis naa ko fi waaye di nuyu tamit waa Touba Angleterre euh, sëriñ Xaadim Diop mu sëriñ Saliou Diop mu Cheikh Obar Diop di suñu xarit ak sëriñ Fallou Diop sëriñ Fallou mii nga xam ne moom it jëwriñ la woon naka jekk nekk Italie ci Treviso euh, moom ak soxnaam yàgg nañoo jënd liquide bi di nettoyer barabu Xaadim Rasul muy muy biy génne doore bi loolu kon yàgg na ci liggéey liggéeyal mu Xaadimatul Xidma kon su demee Angleterre moom bi nekk Londres feeñ na ci lool ci ci ci taxawal daayira bi ak jëmbal ko moom it ñu ngi koy nuyu di leen jaajëfal di nuyu dëkk yi nekk Angleterre yëpp ni nga ko limee léegi. Euh, ni ki noonu tamit waa Bristol Bristol ñoom it ci koor gi indi nañ fi seen addiye muy Touba biir sëriñ Dame Guèye mi nga xam ne mooy jawriñ ji nekk fa ak sëñ bu Buso ñoom mu sëñ Abdourahmane Buso ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu tamit waa Belgique euh, jawriñ waa sëñ Abbas Guèye mooy jawriñ ji Euh, ñu ngi nuyu sëñ Moustapha Amar ak sëñ Khady ak sëñ Baye Fall Ousmane Baye Fall moom mooy dem ci dëkk yi di di di laaj adde yi moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw te di ko ñaanal ku ku am pëstef la di nuyu tamit euh, euh, sëriñ Cheikh Omar Diop mi nga xam ne teew na fi te am yéene taxawal daayira bi ci Tamba kon dëkk yi nga xam ne tudd naa leen mooy ñi nga xam ne teew nañ fi waaye nag am na ay dëkk yoo xam ne ci bitim réew tamit ñi ngi ci liggéey bi te xëy na teewuñ ci jataay bi ñooñ tamit duñ leen fàtte bu fekkee da jataay bi dañ koo jagleel sunu bokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi bitim réew di ci jàpp ci liggéey bi ñoom it bu buñ teewee fi war nañ leen fàttaliku muy waa Nigeria suñ waagaan fay moom it ku jàmbaar ci liggéey bi naa Guinée Conakry Guinée këri tamit euh, alaaji Abdou Thiam ak sëñ euh, Njaay bëgg saaliwu ñoom it ñu ngi leen di nuyu fan yi rek indi nañ seenu liggéey ci daayira bi ni ki noonu waa Gabon Gabon tamit duñu leen fàtte waaw ah, muy sëñ Badou Seen ñoom ak suñ kii drame waaw ah, ñoom it ñu ngi leen nuyu baax waa Uruguay Uruguay Uruguay tamit fan yi rek indi nañ fi seen addiyee ñoom it ñu ngi leen nuyu waa Suède waaw ah, sëñ ndongo ngi nekk Uruguay Suède tamit sëñ Njaw baay Fall moom it ku am pësteef la ci liggéey bi sëñ Njaw baay Fall nekk Suède Stockholm Euh, ak jëwriñ ya nga xam ne ñoom la fa nekkal ñoom it ñu ngi leen nuyu di nuyu euh, waa Belgique yëpp di nuyu tamit waa Danemark Danemark ñoom it ci Europe lañu bokk dañuy tàbbi ci liggéey bi Allemagne noonu Portugal Portugal tamit ñoom it euh, wax dëgg jege Espagne lañ waaye dañuy jàpp ci liggéey bi ni ki noonu waa Brésil teewuñ fi ñoom it waaye jàmbaar lañ ci liggéey bi waa Ghana même Burkina Faso aussi fan yi rek ñëw nañ fi indi seen addiya te ñoom suba it danañ fi ñëw waa Burkina Faso Euh, ni ki tamit waa Norvège ak waa Paraguay waaw euh, ak waa Turquie muy Istanbul ñoom it ñu jàmbaare ci liggéey bi lañ di indi ay saabu ak ay kii yu ci ak waaw ni ki tamit waa Siin Siin tamit ñoom sëñ kii booy sëñ ma madun booy Siin ñoom it ñu yàgg indi ay matériel procel yooyu ci jumaa ji ñoo ko fi indi indi nañ fi ay matériel audiovisuel yu bëri ci sëñ am mu naan wax léegi ci ci ci ci caméra yi ak yu demee noonu ngi nuyu tamit sëriñ ma fëri Ndiaye day coordinateur ci Afrique bëri na sëñ Maam Balla wax na ko léegi bëri na réew yoo xam ne ci biir Afrique moo fa yóbbu liggéey bi ñu ngi koy nuyu te di ko ñaanal bu baax a baax di beral nuyoo tamit waa Amérique Amérique euh, dañ ciy jiital dañuy njëkk a nuyu waa FONCAP muy fondation Khadim Rasoul nord américain ndax ñoom ñoo amoon initiative bu éviter daayira daayira mu ci seen journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu doon def Detroit daayira Muxaddamatul Xidma yabal fa ay ndaw man ak sëñ Assane Diop mii ñoo fa demoon ci ci ci ci ndigalul nag sëñ Maam Mor mu Cheikh Ahmadul ndax fi ne lii ñuy wax tamit bëri na lu ñu lu ñu jàppandalal ci liggéey bi ndax moo moo wommatu moo ñëwoon ci ci daayira bi sàkku ñu boole kook ndaw ngir ñu war Europe yëpp ngir leeral liggéey bi te bëri na dëkk yoo xam ne biñ déggee liggéey bi ci jëwriñ yi nga xam ne ñoom am nañ xel te am dégg ci saa saasa ba léegi ba bii may wax yow ci lañ ci lañ tàbbi ci liggéey kon bu fekkee ne FONCAB invité nañ ñu Amérique tamit ñu dem fa euh, ci bis bi nga xam ne moo gën a mag ñu taxaw leeral liggéey liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma jëwrin yi dégg ko ñu am ci occasion tamit mën a taxawal liggéey bi foofu ci Amérique te Amérique xam nga ne taalibe yu takku ña nga fa te lu jiitu loolu liggéey bi ma nga fa woon ci jaay ay carte ak yu demee noonu mais nosu wutoon booba sëñ Amsatou Lam ak soxna Njaxat Diop moom sëñ Samb su ñoo yoroon liggéey bi di ko doxal waaye bi nga xamee ne dem nañ foofu 2019 ba bisu Detroit bi jàll euh, ci lañ sos fondation Muxaddamatul Xidma bu Amérique boo xam ne euh, dañ koo dëppale ak norme yi dëkk ba wutal ko ay kayit mu tegu ci yoon ñu wutal ko ñoom it euh, plateforme boo xam ne ñoom amuñ jot lool lool waaye dañ ko wutal benn kii boo xam ne toubamousca point org la nga xam ne dafa am ay crédit man ngay man ngay participer ci li ñuy wax crédit paypal wala crédit carte ak yu demee noonu nga xam ne da ngay adhéré wu weer wu jot nga joxe sa code ñu lay dagg muy dem ci compte bu Moukhaddamatoul ma directement ñu nos ko ci ñeenti anam muy entretien nga xam ne ku bëgg koo xam ne entretien ci nga bëgg a participer muy entretien jumaa ji bu weer jotee ñu dagg la ko ramadan ak baqiya ak gàmm nga xam ne fi may waxee ak yow maanaam koor gi jàll eh, ak waaw mooy mooy màggal lañ def muy entretien magal lañ lañ lañ tuddee entretien général am baqiya am ramadan am gàmm ñeent yooyu ma lay wax yëpp dafa am liggéey yi nga xam ne koor ñëwee daanaka addee ju bëri lañuy lañuy lañuy lañuy la ñuy jébbale ci koor gi màggal gi jàll rek jébbale nañ 4 millions 600 et quelque ci màggal gi loolu kon day liggéey bu nosu boo xam ne ñoom it teewuñ fi waaye jaadu nañu ñu jaajëfal leen ci organisation boobu ñu def ndax liggéey bi loolu moo koy moo koy moo koy moo koy jëmale kanam muy nos nos nosu gi kon ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen sant ñi ma lim lépp nag day tab bi ci fekk si liggéey bi nga xam ne moo nekk ci biir mi ndax ñun ñi nga gis ñëpp di ay membre kenn ku nekk sa kart membre ba nga ko ba nga jaayante ak moom dafa am looy joxe weer wu jot danga fa am looy teg weer wu jot su màggal ñëwee ñu jox la lettre tab bi la aw sas mu tàmbalee ci ñun nga joxe saw sas kon biir réew mi am na ay cellules yoo xam ne amul benn bis buñ dul bale jumaa ji muy ay jigéen ñooñ tamit ni ñu ñëwee di xëy si fajar di bale si noonu la ñuy joxe addiya noonu lañuy joxe seen addiya kon biir réew mi am na am na liggéey daayira bi ñoo ko ŋànk léegi nag dafa am ay objectif yu nekk ci suñ kanam yoo xam ne xam nañ ne su su su dayre bi gënee tàllal loxo bu ñu leen gënee tàllal loxo ñu gën a booloo gën a organiser wu am na lu ñu mën a def lu bëree bëree bëree bëree bëri loo xam ne mi ngi ci suñ kanam te jamono ji kat lu waay bëgg a def lu nekk su ko bëggee def faw koom munu cee ñàkk dañoo am dañoo am fuñ jëm foo xam ne ne aramay ni sarifay ni mel Cheikh Amadou Lamine moo ñu ko moo ñu ko doon wax na na Makka ak Madina mel ay nit rek ñoo fa dem def ko kon fii ñun taalibe suñ Tuubaa yi ñoo war a def li fi nekk boo demee aramayni sarifay ni ñun ñi fii ñu bëri dem nañ mag dafa am daayira yu ñu fa taxawal yoo xam ne mën nañ koo méngale ak muxadimatul xidma muy al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar nga xam ne da ñooy sàmm worma ji worma yi daayira daanaka saaru luñ taxawal loo xam ne dañuy digle di tere ci lépp lu yellul ci barab mu am tamit benn organisation boo xam ne mat na ñeenti junni nit ñooy setal ñaari jumaa yooyu ñoom dafa am luñ taxawal loo xam ne benn immeuble bu mag boo xam ne dañ koo samp foofa muy la fay jóge di dellu ci liggéey bi kon waaye nag képp kuy yëngu ci liggéey bi di bale wala ngay sàmm war ma ji ak looy mën a def dañ lay fay weer wu jot foofu lañ jëm ñun foofu dañoo jàpp ne foofu lañ war a jëm te amaguñ doole àgg foofu kon jàpp nañ ne daayira bi war naa àgg foofu war naa taxawal tamit ay barab yoo xam ne ay barab yu am solo yoo xam ne képp koo xam ne ñëw nga ci jumaa ji di xeeñtu mbirum sëriñ bi ngir bëgg a tuub dugg ci lislaam wala nga bëgg doon ku ku ku kuy gëstu yoon wi war nañ laa mën a dalal kon loolu war na am ay logements sociaux yoo xam ne daayira bi am na ay terrain yu am yoo xam ne foofu it war nañ koo tabax mu war a am ay centre de formation yoo xam ne dañuy former képp kuy yëngu ci jumaa ñi ngi koy def di ko defee ci jumaa ji waaye war naa am fépp ci àddina bi ku bëgg ku am jumaa wala nga war a ubbi jumaa wala nga wala nga war a ubbi jumaa war ngaa ñëw ñu former la former la say imam say noddukat say bayaankat say xutbakat loolu dafa war a am centre bu ñu war a tabax boo xam ne ci suñuy objectif la te am nañ palaan yeeg yëpp te defaguñ ko te terrain yaa ngi fi loolu dafa bokk ci objectif yi loolu lépp li koy def jàpp nañ ne kon war nañoo mën a am loo xam ne sax euh, képp ku yëngu ci jumaa ji moo xam imaam nga wala ñi fi sax nga xam ne seen dund gépp fi lañ koy def ñu war leen a mën a gàddul seen kër ñoom ñëpp loolu lépp jàpp nañ ne ñun ñoo ko war a def kon objectif yi ci kanam bëri na te yaatu budget yi nga xam ne moom la ñuy samp tamit euh, euh, ci liggéey yi gën a mag yëpp mën naa mën naa mën naa mën naa cee joxe exemple rek màggal gi jàll rek léegi nii budget bi nga xam ne financé nañ ko ci wàllu espèce ci wàllu xaalis mën na 13 millions 13 millions mën na ko te loolu bokkut ak nag yi nga xam ne dañ ko fi indi bokkut ak ñi sosoo mburu mi gato yi bokkut ak ñi sosoo ndox di ko indi bokkut ak garab yi garab yi nga xam ne ay pharmacie ak ay kilifa yoo xam ne euh, ku mel ne professeur Daouda a yi nga xam ne li indi ci matériel garab kenn xamul nu mu ak pharmacie yi yi nekk ci dëkk bi ak médecin yi yi nga xam ne dañuy walanteeru di indi seen i addiya ñu leen di faj nga xam ne lu ëpp junniy nit daanaka ci biir màggal gi faj nañ leen te ajjuma ji jot mu am benn euh, kii bu fi nekk boo xam ne fajukaay bu fi nekk boo xam ne day faj nit ñi di leen dimbale loolu bokkut ak 13 yi ma wax kon loolu boo xoolee bit see màggal kon lu néew néew dana jege 20 millions waaw loolu bokkut ak ci biir euh, at mi yëpp màggal rek laa la wax waaye at mi yëpp amul benn bis bu ñu dul seetal jumaa ji muy soxla ay serpillère ay machine ay yoo xam ne day setal boo ko xoolee ci sa kër rek li ngay financé ci wàllu setal walla immeuble yi gën a mag ci dëkk bi ci àddina bi li ñuy fere ci wàllu entretien kenn xamul num mu toll niki noonu tamit euh, ramadan su ñëpp laxat affaire mi léegi mi ngi may wax ne ma ren budget koor gi àgg na ci cinquante millions cinquante millions te loolu lépp li may wax fii lay tàmbalee ci membre yi daayira bi yi nga xam ne ñoom bët bu set dañuy xëy di liggéey ñoom la ñuy njëkk a tebbil ay sas loolu lépp dafa jaadu ñu ñu leeral ko suñ daje fii ndax jataay bi dafa am solo ndax àddina bépp ak yéen seeni ndaw yi nekk moo xam Angleterre wala fu ñu mën a nekk ñu xam ne ñu néew ñiy participer ci daayira bi am na lu bëri loo xam ne ab liggéey la nekk ci kanam su ko defee oto bi nga xam ne mooy transporter euh, ñiy liggéey ci jumaa ji muy noddukat yi wala imaam yi wala waa daare kaamil nga xam ne fajar ba guddi kuy ñëw dañ lay jëli di la delloo am na oto boo xam ne Espagne nag ñoo ko jënd ci at yi yëpp ñoo koy jënd di ko yeesal te oto boobu fi ne aajana yeesal fi mu nekk nii kon loolu lu taxaw la loo xam ne mënut a ñàkk muy oto 15 places boo xam ne climatisé lay doon di mën a jëli personnel jumaa ji société yi nga xam ne sax ci àdduna rek la ñuy yëngu dañu am oto personnel kon rawatina ñi nga xam ne ñooy def li gënal sëriñ bi tey nag lu la waaye mën a wax nag ak lu coow li bëri bëri suñ tubaab diine ko taxoon a jóg diine moo taxoon ñu tumu rankel ko fanweeri at ak ñett kon kuy taxaw lii nga xam ne mooy li koy seere ndax tabax bu rafet taxu ko woon a jóg dafa bëggoon ku fi ñëw gis na li ko taxoon a jóg mooy ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon ku fi foo mën a jógee soo ñëwee gan goo mën a am la ngay gën a yittewu muy ànd ak moom ñëw ci barab bi kon boo ñëwee fekk mu nosu fekk fi diine yaa ngi def li gënal sëriñ bi kon loolu ku ciy taxaw jaajëfal la waaye am nga tawféex Sëriñ Tuubaa moo la ci boole niki noonu am na oto vidange boo xam ne waa France ñoo ko fi jëndoon oto bi tamit aajana dolli ndax wala yeesal ndax màggat na lool tey li maanaam demande bi ëpp na oto bi ndax euh, foos yi nga xam ne mooy waajal fi ci la ñuy waajalee ñi wàññiku dañ koy encastré du doon foos perdi te amul benn weer buñ ci dut wii de lu mat ñeenti voyage wala yooyu kon loolu day farata oto boobu kon aajana yeesal ki noonu màggal gi dégg ngeen ñu communiqué ci ay yoon yoon muy bàq bàqee fa ñuy waajalee nit ñi nga xam ne dañoo wàññiku réseau ndox bi dafa néew doole am na sax ñu ciy def ay études ay borom xam-xam waaye dañoo jàpp ne dafa war a am benn oto citerne boo xam ne bàqee ñoo koy moom nga xam ne jaaduwul ñuy waajal nit di jëndi ndox wala yu demee noonu te ñiy nelaw ci àddina bi ñëpp képp ku bëgg a texe Tuubaa ngay ñëw kon war naa am benn citerne bu fa nekk boo xam ne dafay nekk saa suñ soxlaa ndox mu duyal leen loolu tamit ci liñ bëgg la te yitte ju jàmp la noonu la ko jumaa ji war a amee ndax wax naa leen ko léegi li tàmbulee gaaw ba àjjuma amul benn bis ñu dul setal jumaa ji te ndox mu bari lay laaj tey réseau bi amul doole kon aaja na benn setar na moom it boo xam ne jumaa ji da koy moom di duy mbànd yi ngir ñuy nettoyer jumaa ji loolu it yitte la munta ñàkk it benn oto mbalit boo xam ne dafay nekk poubelle yi saa su feesee oto bi jël ko yóbbu fi ñuy tuuri mbalit lii may wax nii lépp nag bokkut ak li nga xam ne mooy saison bi li liy dox ci biir at mi yëpp lii ay mbir la yoo xam ne mënut a ñàkk te dañ koy wuti kon lépp loo xam ne dañ koy dañ koy wuti nag tàmbalee ko ci ñu yor daayira bi ci biir kon suñ dajeeg waa bitim réew war nañ koo leeral ngir àddina bi xam loolu muy taalibe Sëñ Tuubaa yi nga xam ne ay kenn lañ ak ay mbooloo am na ci yoo xam ne kenn nit moo koy dégg di taalibe Sëñ Tuubaa jënd ko andi lu mel ne daaw bi ñu wax fii ay corbia indi nañ fi ñaar yoo xam ne taalibe Sëñ Tuubaa yi ñoo ko jënd benn bi sëñ do sëñ Babacar Jonn moo ko benn bi waa wallu ak yeete ñoo ko jox si sëñ Mouhamadul Muntaxa mu joxaat ñu corbillard yi nga xam ne bu njëkk loolu amutoon dañ daa jël ñi wàññiku di leen yàpp ci ay oto yi juróom-juróom ak ay kii ak yu demee noonu te loolu saafarawu na kon nit ñi nga xam ne ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ te liggéey Sëñ Tuubaa dong moo leen ñor te gis bàq bu tooy bañ ji moo leen ñor kon yooyu dañ ko war a dégg dañoo war a dégg information yooyu liggéey la boo xam ne soo ko defee a ah tiyaaba ji bëri na lool kon jataay bii jataayu mbégte la ak tawfeex boo xam ne munta ñakk liggéey yi nga xam ne mi ngi ñëw ci yéen ngeen koy def di ñu ci jàppale dañoo jàpp ne ñu ngi ci jàppale yéen ngeen dañoo jàpp ne ñun ngeen ciy jàppale te xam nañ ne yéen it seen yëfi bopp lañ ndax gënuñu leen ca yey te sañ-sañ ñu ci am mooy ñu xam ne lii ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko bokk bépp taalibe boo xam ne gis nga lu la neexul ci jumaa ji sa téléphone du noppalu ngir téléphoné ngir loolu ñu saafara ko fu ñu mën a nekk ci àddina bi barab bi moo leen ñor kon lépp loo xam ne mooy saytu barab bi di ko sàmm ñun ñëpp la war du lenn kenn lépp ñëpp la lépp ñëpp nag lu ne ku ne ngi ci kon daal ci turu commission bi nga xam ne moom mooy cor mooy coordonné ak yéen loolu laa amoon euh, kii ci leeral ko la ci des Sëriñ Abdou Lahad Muxtaar miy wax ci turu Sëriñ Afiya euh, dana ko dana ko mottali ci li nga xam ne des na ci li ma waroon a wax waaye kon mbokk yi li wax ci ñu gën a nos liggéey bi loolu mënut a ñàkk comme ni ko waa France di tàmbali defee nii nga xam ne sos nañ benn association boo xam ne suñu am di mi moo ko jiite ñu war ko wutal benn plateforme Amérique def ko jàpp naa ne Angleterre tamit ci réew yi avancé lañ ci wàllu technologie lu mel noonu it mën nañ ko def ak yeneen réew yi nga xam ne euh, ñu ngi ci Espagne noonu am nañ association boo xam ne suñ bàyyi daam loo Cheikh Moustapha Al moo ko jiite mu am compte boo xam ne bëri na addiyee yoo xam ne nit ñi seeni yëgle rek la ñuy def addiya yooyu di dem ci compte bi direct loolu lu yéwénal seenub liggéey la kon bu ñu gënee nosu ci loolu jàpp naa ne yitte yi nga xam ne moom laa wax léegi xaju ci xaju ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi tey nit ñaa ngi jëf lu nekk te taalibe yi dafa am loo xam ne dañ koo yëgul rek kon information dafa munta ñàkk ci ñoom ñu jot ko kon daal ñu ngi ñaan suñu sëriñ bi mu nangul ñu te defal ñu tawféex ak taysiir te may ñu ak wér nag ak kàttan ak wërsëg ndax ñun ñi lu ñu am Sëriñ Tuubaa lañ ko yéene kon nañ ñaan ci sëriñ bi nañ ñaan ci sëriñ bi mu may ñu wërsëg woo xam ne luñ bëgg a liggéeyal sëriñ bi def ko barakati xaadim rasul li sëriñ Mouhamadul Muntaxaa di wax naan sëriñ Touba malaykal muxarrabun yëbu ko e, dara yëbu ko ndax fa mu toll boromam kenn tollu fa noonu la taalibeem yi mel ñu nit sëriñ Touba moo ñu waxoon nañu saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine kon ñoom ñooy suñuy nawle te ñoom seeni bakkan doon joxe ak seeni alal ak seen temps te ñun alal lañ ñu laaj kon nag suñ ñaq ak suñu alal bu sëriñ bi soxlaa waru ko fekke kon yàlla ñu yàlla defal tawfeex te defal ñu taysir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu